jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi topp l'invité de la rédaction am nañu mbégte àndaat ak yéen tey jii nag ñu fas yéene dalal Talla Sylla euh, XY fas yéene ànd ak moom nekk ndaw boo xam ne day yëngu ci politique nekkee ci APR di parti njiitu réew mi euh, Talla maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ousseynou di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan ak fépp fu ñu mën a féete. Mm-hmm. di ñaanal kilifa dëkk bi di Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou. Mm-hmm. di xalif général des di yàlla na ko yàlla may fanu gudd ak wér gi yaram di nuyu mboolem koo xam ne rek mi ngi dëkkee Touba di dégg suñu kàddu wala fu mu mën a nekk ci àdduna bi en tout cas mhm. suñu xaritu internet yeeg gaa yëpp ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla di leen ziar. Mhm. donc di ñëw fii pour waxtaanee loo xam ne njariñu askan wi dong moo tax. Mhm. Euh, waxtaan wi jóg quoi. voilà xam naa dinañ ci dikk incha allah rabi wax naa ko sànq ndaw nga nekkee ci APR di parti njiitu réew mi euh, xëy na am na ñu la xam mais am na ñoo xam ne peut-être euh, des na bu ñu bëggoon xam sa parcours ci wàllu politique lan nga waaw man nag moom politik yàlla dogal na ni xëy na ndaw laa ba ma koy tàmbalee def yàggul donc ci parti bii nga xam ne moom laa bokk moom laa mos a bokk mm-hmm. maa ngi ca bokk nag 2008 balaa ma cay bokk nag mm-hmm. wax dëgg yàlla yoroon naa benn mouvement mm-hmm. boo xam ne maa ngi ko àndoon ak yeneen ndaw yoo xam ne am nañu xemmemteefu bokk ci lépp loo xam ne dina indi développement économique ak socialu seen gox jeunesse patriotique du Sénégal moom lañ ko tuddee woon ma àndoon ci noo bari woon nañ wax dëgg yàlla ay ñoom Ousmane Yade Sangara la léegi ñoom euh, Moussa Ndaw ak ab Ablaye mbay ñoo ko jiite woon am na tamit wax dëgg yàlla jeunes yu bari ay ay ñu baree bari ñoo xam ne ñi ngi ci woon bi nga xam ne nag mouvement bi li ko taxoon a jóg mooy ñun dañu gëm ne askan wi ci la ñu bokk dañu gëm ne tamit lépp loo xam ne njariñul askan wi la ak fu mu nekk dañ ci war a dox bi ñu amee xalaat boobu ñun ndaw yooyu ñu dajaloo ne ñun kat dinañu taxawal kuréel goo xam ne dinañu liggéey loo xam ne dana jëm jëm ci askan wi nga xam ne kat xam nañu ne ñenn ci ñoom peut-être seen loxo jotul seen ginnaaw mm. am nañu aajo yu bari yoo xam ne peut-être ñoom am nañu ko ñun mënuñu faj aajo mais war nañu mën a taxaw nag aajo yi askan wi am ñu koy wax loolu moo taxoon ñu am xemmeemteefu créer kuréel googu di mouvement bi. Mm-hmm. bi ñu ko créer tamit wax dëgg yàlla bi ñu demee ba gis programme politique bu président Macky Sall ak ñeneen ñi nga xam ne aussi nekkoon nañ fi mm-hmm. mais dañu xool programme bi ñu defee programme bi ba pare nag dañu def benn genre enquête de moralité. Mm-hmm. xam nañ ne Idi mi ngi fi woon ci jamono boobu mais xam nañu parcours am fi mu jaar ak askanu Sénégal luubal suñu kees ñu jàpp ko tëj ci kaso bi kon kooku ñun doyuñu xool nañ Macky Sall ne ñoom moom kat bi mu nekkee ak poste yi mu fi téye yépp kenn gisu ko mu def lenn loo xam ne méngoowul ak luy intérêt réew mi looloo tax ñu ne ñun kat kon dinañu ñëw ci parti bi ànd ak moom ba ñu tàmbalee ànd ak moom ak tey tamit nag wax dëgg yàlla amuñu lenn loo xam ne rëccu nañu ko ci ànd gi ñu doon ànd ak président Macky Sall ah waaw moom lépp sayel mouvement bi ana mouvement dañu dem ba ci biir sama benn xarit boo xam ne ca jamono jooja. muy ab laat sekk saa dàgg ca jamono jooja. ca ci jamono boobu moom moo fi nekk. ak ñeneen sax peut waaye man moom laa xamoon. Mhm. moom moo dajeeg ñun. Mhm. ñëw sax dafa bokkoon ci mouvement bi. Mhm. biñ demee ba ci biir ñu waxtaan ko moom miinante naag président Macky Sall grâce à moom wax dëgg yàlla ñu ñëw ci parti bi loolu ma lay wax nii c'était en 2008 wax dëgg yàlla bañ ñëwee ànd ak ñoom di liggéey bañ demee tamit ba gis ne liggéey bi peut-être ñun am na beneen yoon buñ ko gisee ñu dox ci suñu yoon mais en tout cas daal loolu mooy suñu euh, li waral ñu ñëw ci suñu parti non mouvement bi bañ ñëwee ci parti bi dañ ko seeyal ci parti bi man ma benn dama lay wax ñaar c'est nit ki da weex wala nga ñuul. man mënumaa gëm ne Macky Sall mii kat programme politique bi mu yor baax na ci askan wi ba pare man ma yor loo xam ne dama ne dama koy liggéey pour njariñu askan wi ma ñëw bëgg a taxawee gauche mu taxawee droite loolu du dem yaakaar naa ne li gën mooy ñun ba ñu ñëwee suñu movement dañ ko jël teg fële ñëw bokk ci APR doon ay ndaw doon ndaw yoo xam ne nag ñoo njëkk a bokk ci parti bi di APR loolu man naa ngi koy wax man ñoo njëkk a bokk ci APR ah li ñu liggéeyal président Macky Sall tamit hmm. amul benn ndaw wax ji mën naa bari parce que tey la neex. mais yéen lan ngeen liggéey président Macky Sall nga xam ne élection yi fi mais élection yi fi jaar ñu gagné ko ngeen ne liggéey liggéey. élection élection buñ gagné président Macky fii ci dëkk bi. parce que am na ñoo xam ne peut-être ay kilifa la ñu ci parti bi te defuñu la leen war. am ay kilifa yu mais waa peut ah. loolu am na. Hmm. parce que yow bu ñu nee parti politique. nga ne da ngay dem ci ay élection kay pour nga gagné ko moo tax. Hmm. léegi boo demee ci élection gagné ko am na loo xam ne waroon nga ko def te defoo ko. waxoon naa ko fi may ma ma ñëw man yàgg na maa dénoncé ne gis nga. Mm-hmm. nit ñi duñu ay dof ay nit njaay lañu. Mm-hmm. képp ki nga xam ne da ngay def politique te xam ne askan wi moo la tax di def politique. Mm-hmm. da nga war a jox cër askan wi man gëwma homme politique boo xam ne li nga lépp looy wax askan wi du doon yow sa jëmmi bopp sax loo gëm. man li ma gëm mooy mënuma d'accord askan wi toog. am naqar seeni rongoñ ji dal seen dënn ba pare yow fajuloo loolu ba pare ëllëg nga taxaw ci ñoom naan leen jox leen ma seen ay carte mënuma comprendre yow doo ma sa taxaw ci télé wala ci rajo pour defendre tey ñi nga xam ne peut-être ñi ngi ci quartier périphérique yi ñi nga xam ne bu ñu añee du ñu ñi nga xam ne amuñu ndox mu baax ñi nga xam ne tey seen dundu dundu wereyaan la mais ñooñu naka nga mën a taxaw seetaan leen ñuy souffrir ba pare yow nga bëgg ñooñu bu ëllëgee li nga bëgg ñu defal la ko il faut que ñu waxante dëgg ba léegi mooy persister ak régime président Sall ba léegi askan wi ñi ngi jooy nga président Macky Sall li ma am mooy que wax dëgg yàlla def na ay effort yoo xam ne depuis l'indépendance à nos jours musuñu gis ci ñi fi njëkk a jaar ku def li mu def. Ah Macky Sall am na initiative yoo xam ne bu ñu ko toppee man naa jële Sénégal ci bërëb yóbbu ko ci bërëb xëy na nag Macky Sall am na ci ñoo xam ne dañu wër ko di ànd ak moom man ñooñu laay blâmer. may ma tuuti parce que ñooñu xam naa ne. li Macky Sall bëgg bu leen dégloo du ko am ndax Macky Sall mooy entourage bi mooy ñi nga xam ne dañu ko wër ba pare ay intérêt personnel ak nu ñu defaree seeni compte mu fees moo leen tax a jóg askan wi yitteelu leen te man dama gëm ne askan wi d'abord balaa ngay naam da fekk nga nekk fa boo fekkoon askan amul mais état du am lan moo tax askan woowu dajaloo doon état di dajale seeni fukk ak seeni ñeent fukk di ko def ci benn pot pour di xaar lu état bi delloo si ci ñoom jëm ci seen santé seen éducation et cetera. Mm-hmm. ba pare am ñoo xam ne dañu taxaw pour fëkk ko kob boobu def ko seen i ay poos ban citoyen sénégalais bu responsable moo mën a taxaw di ànd ak ñoom ci jëf jooju que ma ànd ak président Macky Sall que ma bañ a ànd ak moom askan wi mooy sama lépp d' abord mm-hmm. dama ànd ak askan wi njëkk doog a ànd ak Macky Sall moo tax bu ñu naree noot askan wi ma taxaw ne askan wi bu leen kenn noot parce que askan wi ñoo moom dëkk bi te ñoo moom koom-koomu dëkk bi aussi xam ne yéen a nekk ci APR surtout fii ci Touba est-ce que gëdd bi ñu leen war a jox jox nañ leen ko. waaw Touba moom wax dëgg yàlla ndaw yi fi nekk bu ma gisee ndaw bu dëkk Touba bokk APR nga ne nga ne jox nañ ma gëdd dama naa ndaw bu naafeq mi ngi nii. ah bien sûr. du benn. kon amul benn ndaw ndaw yi nekk ci Touba kon kon joxu leen gëdd. joxuñu leen benn gëdd. Hmm. parce que gën naa ne bu fekkoon respect am na. Hmm. ndawu Touba dañoo sonn ci APR. Hmm. dañu sonn ci jàppale son excellence dañu ko defal lu ne guddil ko ba bëccëgal ko teewal ko ci bërëb yoo xam ne dañ leen di sànni ay xeer ci bërëb yoo xam ne dañ leen di saaga parce que na nga xam ne jàppale président Macky Sall Fatick bokkul ak jàppale président Macky Sall Touba ah parce que xam nga ne Touba majorité bi ñi fi nekk bu ñu waxantee dëgg mais diabolisé nañ leen ak Macky Sall ba bëgguñu ko ñenn ñu ci bari bëgguñu ko te ñi nga xam ne tamit ñoo fi nekk di ay homme war a dugg ci terrain bi communication bi ñu war a mëne askan wi ba man leen indiwaat ci APR wala ci bëgg Macky Sall defuñu ko léegi nag yooyu yëpp boo ko xoolee tax na ba dundin biñ fi dund xëy na metti na metti goo xam ne man gisoon naa Macky Sall mu jàppale ndaw Touba ñi nga xam ne dañu bokk ci parti bi mais aussi ndaw yi nga xam ne politique ñu bokkuñu benn parti parce que Touba mooy benn dëkk ci àdduna boo xam ne am nga un million cinq cent mille euh, de personnes yoo xam ne ñu ngi fi dëkk mais amul benn industrie boo xam ne dina permettre jeunes am emploi noonu injustice la lu tax kilifa yii fi nekk du ñu taxaw di kaas lu mel noonu. donc da nga gis ne kilifa yi fi nekk kaas lu ñu war. ñépp laa wax amul mairie bi d'abord mooy ki nga xam ne man barki sëriñ Touba Mbacké maire bu Touba. bu amee lenn lu muy def actuellement lu dul tekki ndomba tànkam. kon da nga jàpp defut lu neex sëriñ bi. lu tax lu parce que benn xam nga yow yaa ngi koy wax sànq. Hmm. am na kilifa yi fi nekk. mais ki ci njëkk mooy maire. Hmm. yow kay bu fekkee ne amoo moyen yoo xam ne man nga dem fépp ci askan wi defal leen lañu la war ci ñoom yàlla dénku la moyen bi xam nga loolu mën nañ ko nangul nit mais yàlla dénku ma kàddu gu ma ko waxee loolu amul amuloo ay moyen mais am nga possibilité wax xam nga ne ndaw ñi ak jigéen ñi ak ñi dëkk ci ci périphérie ji kenn ci ñoom dundul lu ko neex mais taxawal nga dem ci ñi nga xam ne ñooy les autorités compétent nga waxtaan ak ñoom wax ak ñoom problème yi nga xam ne dëgg mi ngi ci biir dëkk bi mais mairie bi defu ko. ba pare. Mhm. boo waxee ñu ne dañ lay menacé. Mhm. maire bu gën a cuune maire bii fi nekk. Mhm. ñoom dañu war a tekki seeni ndomba tànk. waxuñu ko parce que dañu leen bañ. mais dañ ko wax parce que dañoo bëgg Serigne Touba. ba pare xam nañ ne sagub Serigne Touba mooy Touba doon dëkk bi nga xam ne dana romb dëkk yépp ci melokaan bu ne. te loolu pour mu am mais faaw mu am ay nit yoo xam ne dañu am xam-xam mën a yor dëkk bi man koo doxal. dama ne. nit ki boo amee xam-xam boo doxalee ñu wax ko. bu bu fi yàggee parce que yaa ma neex la mais waru fi yàgg. Hmm. man li ma gëm mooy. maire boo demee ba nga xam ne xam nga ne lii kat ay la yéwén. Hmm. dënk nañ ma ko wax dëgg yàlla. waaye la nga xam ne moo ci war man mënuma ko. Hmm. danga war a tekki sa ndomba tànk te yàlla tax. man loolu laa gëm. li sa problème ak maire soobu nga ci mbéj barke Serigne Salihu mi ma dul giñee caaxaan. sama sang bu baax boobule. nga xam ne duma ma ko giñee caaxaan maay ki gën a sopp meer mën naa ko wax ci àdduna bi waaye damaa sopp tamit askan wi te damaa sopp aussi dëkk bi meer bu ma ko soppee hmm. bu ma ko doon conseil di ko xelal en tant que sama baay hmm. dama naan ko man kat gis naa ne yow li la waroon tey hmm. mooy boo jugee dem ci askan wee hmm. kenn ku nekk ci ñoom dee ko déglu moo xam ci secteur bu mu féete ak lu muy def boo ko dégloo di nga xam ne moom kat li muy dund lii la. mais est li ngay def nii du clin d'œil pour maire yi euh, gisante moom. toog ak moom liggéey liggéey ak moom. parce que gis nañ fi ñeneen ñoo xam ne dañ doon attaquer le maire léegi ñu ngi fa ci biir di liggéey. ma lay wax ñaari mbir. Ah. àdduna ñaari nit ñoo fi nekk am na ñoo xam ne dañuy xiif di wax dëgg ñu di leen di jënd ñuy bañ parce que dañuy dund ak ay principe am na ñoo xam ne jaam moo leen tane ci ab gox nga wax ñu woo la ci pet jox la nga noppi te nga ne askan wi nga doon waxal kon war ngaa xoolaat sa bopp man li ma gëm Ousseynou mooy man askan wee nekk ca Tindoodi mm. askan wee nekk ca Sàmm mm. askan wee nekk Baxdaad ca ginnaaw ak li ko wër mm. ñooñu fa nekk nga xam ne boo demoon ci ñoom yow sa yaram day daw dinga xam ne ñii bu ñu añee du ñu reer di nga xam ne ñii seen dara matul di nga xam ne ñii amuñu tali bu baax dinga xam ne ñii dinga xam ne ñii mm-hmm. ndox mu baax amuñu ko. dund gu metti la ñuy dund. man ñooñu laay wax pour maire bi jox leen cër. mais Talla askan woo ngay wax cër boobu ngay wax maire kay dimbale na leen am na dimbal loo xam ne jagleel na leen ko vraiment nag. <laughs> mairie bu tuubaa jël na suñu xaalis ñun waa Touba. lu toll ci deux cent millions de francs CFA. li ma gën a naqari ci sama àdduna. nga ne da ko jënd pour ñan pour askan wi nga xam ne malheureusement seen loxo jotul seen ginnaaw ñi nga xam ne bu ñu añee du ñu reer sa yaram war na daw bu fekkee ne da ngay toog ñu dajale seen weccat jox la nga ne damay dem jënd ceeb ñëw dimbale leen war nga koo jënd jox leen ko mais non seulement man de gisuma ne huit mille sacs yi ñu wax gëw ma ne mat na la ma gis mooy cinq mille cinq cent cinquante sacs séddale nañu ko des na deux mille quatre cent cinquante mënoo nag ne yow da ngay jël xaalisu askan wi da ca def ba pare bu buñ ko waxee nga ne duñ ko wax beneen bi mooy yéen yéen a ma gën a gis boo leen demoon ci quartier périphérie gi ñi ci ëpp ay benn kilo ceeb lañ leen jox. mais daanu dajul suuf bu dajul suuf na nit ñi gis ne jox nga ñii lan lañ joxe ak kan lañ ko jox nañ ma ne kii ci dëkk bi jox nañ ko saakub ceeb. mais ñoom xanaa buñ joxee ba pare kay am na ay. Euh, firnde benn firnde amul benn preuve lenn loo xam ne wane nañ ko ne jox nañ askan wi ceeb bi amul te askan wi bari na ci ñoom ñoo xam ne ñoo génnal seen bopp ci télé yi def ay vidéo ne ñoom nañ leen benn paquetu suukar jox nañ leen ñetti kilo yi ceeb. imaginez deux cent sacs yoo xam ne de euh, comment dire quatre cent sacs yoo xam ne euh, quatre mille euh, quatre cent tonnes je m'excuse yoo xam ne da nga ne jënd nga ko muy huit mille saaku ceeb ak la mu àndal war ko jox askan wi muy deux cent millions de francs CFA nan nga ko mën a jëndee ba pare askan wi ñoom ñëpp maanaam maaseendoo na ñoom gisuñu ko kon kay mooy jëndoo ko wala boo ko jëndee la nga jënd matul parce que tamit boo ko jëndee ñun am nañu droit dem saytu gis nañu ne marché bi yaa ma neex la yow kon da nga saytu marché ba gis ne yaa ma neex. daa koo saytu ba gis ne yaa ma neex la. damaa saytu ba gis ne sedduñ askan yaa ma neex mënul weesu. ci jëndin wi c'est-à-dire mënul weesu. ki gagné marché bi doon koo xam ne ci conseil yi la daf la jege sa xarit la. ki gagné marché bi ceeb dama ne ki ko gagné ak na paase garaaw. Hmm. li may wax. Hmm. ki ko gañe ci conseil yi la. Ah ba noppi doon sab xarit. ba pare fañ dem di ko jënd lañ wax ak lañ la am bokkul. Hmm. kon kay ñun am nañu droit ñu laaj. man dama posé question. monsieur le maire. li nga xam ne moom lañu la dénk lu ñu bokk la li nga xam ne moom nga ci jël lu ñu moom la li nga jënd ci ñun la war a jëm askan wi li nga ko jëndee sañ nañ la laaj kon danga war a tontu leeral ne mankat ci seen xaalis jënd naa ci nangamu ceeb ak nangamu diwlin ak nangamu suukar bi ma ko jëndee kat jox naa ko nangamu nit ci population bi mm-hmm. mais yow mënoo jënd ba pare mm-hmm. ñun ña gis la nga séddale benn jaarul yoon ba pare la nga ne moom nga séddale am na cinquante sacs yu ñuy gisul non seulement sax loolu yëpp mais ci biir séddalin wi ma gis nga bind kat ne man jox naa 200 euh, sacs yoo xam ne dama ko def personnel personnel mooy kan mooy ki nga xam ne mooy mooy mbaxar yàpp ki nga xam ne mooy topp ci ginnaaw ki nga xam ne peut sax mën nay liggéey ci mairie bi mais kii liggéey ci mairie bi am na salaire moo tax ne ki nga xam ne ma nga ca tindóo di bu añee du reer moo tax ne ki nga xam ne moo nekk ginnaaw Baxdaad c'est-à-dire nit ñu faaw ñu nangu dëgg man damaa nekkul ci ay caaxaan damaa nekkul ci wax loo xam ne méngoowul ak intérêt askan wi léegi nag jëfi luqu njuur ji la def ma wax ko juróom fukki nit ak juróom benn woo nañ ma nee nañ ma dinaa la rey Ah, barke Seydouna Mohamed menace yaa ngi sama portable hmm. dugal naa ko ci internet bi hmm. te buñ may menacé li ci gën a waar mooy dañ ma maire ba yónni nee nañ ma yow danañ la rey parce que yaa ngi wax dëgg <laughs> man nag bu ma demee ba sëñu maa wax dëgg te may taalibeb Serigne Touba ma faatu Serigne Touba dëgg moo ko may li mu am réellement ñooñu ñooñu moo leen yónni euh, tamit dañuy xam naa leen hmm. maire moo leen yebal ma wax man seen kaddu laa mën a sukkandiku dama jàpp ne nag ñooñu may ma tuuti dama jàpp ne ñooñu dañuy yàqal maire mais defaraluñ ko parce que kilifa boo yoree li ñu bokk nga ne bu leen ci waxte bu leen ci xalaat damay jaf lu ma neex kenn du la déet wallahi la xasimi loolu mënu nit mënu ko am ci àdduna yonente yàlla Muhammad da koo amul Serigne Touba mi ñu gëm tey am na ñoo xam ne gëmuñu ko kon yow naka nga mane ne man li may def ñëpp dañ ciy ànd par la force. ok gis nañu euh, Covid 19 bi euh, dugg Sénégal euh, rawatina fii ci Touba lan moo war a nekk taxawaay yi nga xam ne ñoom fi nekk surtout pour sensibiliser nit ñi gis nañu ñu leen sonalee surtout. waaw man Covid 19 bi. Hmm. li ma ci mën a wax mooy. Hmm. xam naa ne Touba. Hmm. war nañoo santaat Serigne Touba. ci ñaari anam nag wax dëgg yàlla. Serigne Touba yal na ko yàlla suñu borom fay. dafa def lépp. Serigne Touba dafa wàccoo ak ñun dëgg la nit ñi ñu ngi wax tuubaa am na ñoo xam ne bu ñu sañoon Touba day xëy am ay junni junni kaa am na ñoo xam ne ñu ngi yàq deru Touba man nag bu ma sañoon loolu kenn du ko def parce que feebar bi kat dugg na ci dëkk bi ci jamono bu njëkk am na ñoo xam ne ci askan wi xay na gëmuñ woon ne feebar bi am na. mais man li ma leen di wax mooy que ni feebar bi lu am la te luy faate la te lu gaaw ci rey la aussi feebar bi dakkoor yeneen feebar yi day rey pal yi day rey leneen ak leneen day rey mais li ko wutelee ak feebar bi mooy lii lu bees la ba pare amuñu garab bi koy fat ba pare ni muy wàllantee dafa gaaw yeneen feebar yi ñu wax yépp day rey mais wàllante wàllante boo xam ne bii ni mu gaawe gaawe na ko kon loolu moo taxoon man li may wax askan wi mooy que ni nañ yokk a buñ yokk moytu yokk a fagaru moytu feebar bi mu law ci biir dëkk bi waaye wax ñi nga xam ne dañuy profité ay noonu sëriñ bi lañu noonu dëkk bi arrêté mm-hmm. nañ bàyyi lu ñuy def Touba moom li muy mel mel ne ko mm-hmm. na muy la muy am barke alxuraanul karim amul mbindeef mu mënee tere Touba mu doon numéro un mm-hmm. loolu yàlla suñu borom a ko dogal de kenn mënu ci dërëm Serigne Touba mooy numéro un ba abadan kenn ku mën a dindi loolu amul ci àdduna maa ngi nag naqarlu benn affaire président Macky Sall yow de dañ laa dénk suñu askan bi jafe-jafe amee nga génne suñu xaalis ñun lu toll ci mille milliards war ko dugal ci biir xeex bi mhm. mais ci biir mille milliards yooyu am soixante nangam milliards soixante neuf milliards yoo xam ne génne nga ko jëme ko ci ak dund mhm. goo xam ne dañ ko war a jël ngir askan woowu nga xam ne kat mhm. wax dëgg yàlla seen loxo jotul seen ginnaaw te président Macky sàll yow dafa am ñu la teewal ci gox goxaan yi am nga ay préfet ay sous préfet yoo xam ne mbir mi bu ñëwee ànd ko ak maire yi ci loolu la seen loxo war a teg bi loolu amee séddale gox bu nekk Touba am na la mu war a am. voilà donc euh, Talla gis nañu ne ñi ngi ci euh, cetul waxtaan bi alors gis na lan mooy euh, Touba fi mu toll nii xëy na li ñu war a tuddee ay manquement yoo xam ne peut-être wala priorité yoo xam ne peut-être bu ñu ko defoon dina gën a méngóog jamono. d'abord maa ngi doon eggale ci ceeb bi. Ah, xay na peut-être ma tënk ko. Mm-hmm. léegi li ma ciy tënk rek mooy dama doon wax ci préfet mm-hmm. te eggalaguma. Mm-hmm. mooy que ni mu xam ne. Ah, waaw li ma koy wax. Mm-hmm. na ci bàyyi xel. Mm-hmm. na xool li ñu ko dénk xool li ñu ko jox pour mu war ko jox askan wi mu def lépp lu mu man ci ay pexe ba askan wi jot te bu ma sukkandiku mukk ci ñi nga xam ne ñi ngi ci biir commission yi ah am na ñoo xam ne ay politiciens lañu yoo xam ne ñi ngi ci commission yi dañuy manipuler ñi nga xam ne ñoo nekk ci commission yi nekk ci quartier yi te man maa ngi wax ne sama koñ ba ma dëkk ceebu làkk bi ba mu ñëwee li ma wër ci entourage bi amul benn nit boo xam ne la ma wër am na xam nga lan lañ wax hmm. chef de ba da dem ba taala man dañ ma laa ragalloo ndax nee nañ ma kat bu ma la jegee bu ëllëgee bu ma soxlaa ci meer laat ka laat du ma dimbale léegi kooku amul benn lu mu jox ba fii may wax a yow la ma wër kenn joxu leen te maa ngi wat ci sëriñ Touba nag bu ñu leen joxul bu ëllëgee li ñu bëgg ci ñoom dañ koy bañ mënoo ne damaa jilif benn askan ba pare mhm. jël di def deux poids deux mesures am na loo xam ne c'est pas normal te duñu ko nangu voilà c'est bon ñëw ci priorité yi fii Touba waaw mhm. priorité yi nga xam ne mhm. Touba ndeysaan dañoo doon askan wu yaru barke Serigne Saliou Mbacke yàlla na leen yàlla fay askan woo xam ne bu ñu amee naqar du ñu dox ñaxtu askan woo xam ne dañoo dégg ndigal te di ko topp askan woo xam ne dañoo roy seen bëgg seenub sëriñ te di ko roy waa sëñ bi askan woowu ku leen am wax dëgg yàlla war nga di leen bàyyi xel ci lépp li war ci ñoom Touba ku ne xam na ne li njëkk ci lu ñu war a taxaw mooy mbirum éducation man li ma mënul comprendre mooy dëkk boo xam ne toll na nii ci askan ñu xalaat ne ëllëg dina ñëw lu bari ñu war ko fi am ci ay infrastructure est-ce que dañu nar seetaan ba bu ëllëgee ay nit yoo xam ne gëmuñ sax sëriñ bi ñooy ñëw ci biir dëkk bi di ñu yoroo suñu ay infrastructure loolu nag c'est inacceptable moo tax ma ne gis naa ne war nañu jéem a trouver solution ci côté éducation beneen bi mooy tey gis naa ne tey ndox mi ku ne xam na ne li ci nekk ñun ñëpp xam nañ ko Touba amul ndox mu baax Touba amul ndox mu doy ci ñoom d' abord mooy jéem a xool ban solution bu fekkee ne ñii ko yor muy maawu raxmati man jaaxal na ma bu fekkee ne dañu war a détacher par exemple ñu am lu ñu leen jox lu lu jëm ci mbirum ndox mu neex mi lu jëm ci yeneen kii kii bi euh, xaw ma daal mais en tout cas war nañu mën a xool maa u rahmati ni yore yoree ndox mi ñu gën leen ñaax ñu gën a bàyyi xel askan wi ak ñi nga xam ne ñooy nekk surtout ci biir quartier périphérique yi beneen bi mooy tey éclairance publique bi ku ne xam na ne quartier yu bari ci Touba boo fa dëggee duggee mais agression bi dafa nekk ñu baree bari duñ ko xam parce que Touba bokkul ak yeneen dëkk yi nga xam ne mais dañu am habitude dara na naqari leen wala am benn problème bu nekk ci gox ñu woo presse bi mais am na ay agression yoo xam ne mi ngi am loolu yëpp dañ ci war a bàyyi xel beneen bi mooy gis naa benn phénomène boo xam ne mu ngi ci biir dëkk bi ne ci kilifa yi bàyyi xel mooy am na ñu nekk ci biir dëkk bi te gëmuñu Serigne Touba ñu bari nag la la nag léegi am na kuréel yu fi nekk yoo xam ne ñoom li ñu bëgg bu sottee mooy taxaw jàmmaar jàmmaarloog waa dëkk bi maanaam am na ñu fi nekk ñoo xam ne gëmuñu sëriñ bi yeneen gëm-gëm la ñu am mm. te barke Mouhamed li ma wax dafa am mm. te ñoom buñ ko gëstoo dinañ ko xam mm. loolu nañ ko saytu ba pare nag fexe ba nit ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi te di fa ubbi seeni ay daara nañ ko jéem a contrôler parce que nit ki day jugee fongale mi jéem a xam kan mooy kan kan mooy def lan am na koo xam ne day jugee fongale mi ñëw ubbi fi daara di def n'importe comment di jàngal xale yi di détourner seen xel di leen yóbbu ci leneen lu bokkul ak njàngalem bi ku ko yor mm-hmm. da nga war a fexe ba lépp nga di ko bàyyi xel kon loolu ñu ngi ciy ñaax mm-hmm. euh, euh, autorité yi mm-hmm. mais daal pour tëj moom bu fekkee ne euh, mën naa ko ñaan mooy li may ñaan daal mooy maire bu Touba <laughs> ak ki nga xam ne mooy le préfet nañ fexe ba askan wi li ñu leen joxloo askan wi na egg ci ñoom nañ xam ne buñ leen ko jox la joxloo leen ko ay politiciens ñi nga xam ne tamit ay politiciens la ñu nekk ci biir di ko jëfandikoo di ko di wootee naan jox la joxal leen ma seeni ay sama ay militants loolu nañ ko bàyyi am na politiciens yu mag yu takk ay ndomba tànk ñoo xam ne doyluwuñu duñu ay gor parce que mënuma comprendre yow nga nga am li nga am ba pare toog fa nga toog woote sa téléphone naan sama militant nangam wax daal mooy maa ngi koy wax la préfet te di ko wax na ñu xam ne Macky sàll mii nga xam ne moo jiite réew mi li mu jënd di ak dundukat na xam ne askan wi moo ko tax a jóg nañu am fulla ju tooy ne li ñu leen jox pour ñu jox ko askan wi na egg ci askan wi ndax askan wi kat ñoo ko yelloo maa ngi leen di wax nag ne leen am na ñoo xam ne ay homme politique lañu yoo xam ne benn man bu ñu amee ngor dina ma jaaxal mënoo doon homme politique bu am lépp am ay ndoma tànk ba nekk ci commission yi di jël sa téléphone di woote naan sama militant nangam na nga ma leen ko joxal loolu am na kon nag yooyu yëpp pour mu bañ a am damay ñaan préfet ci boppam mu am beneen mu mu am vigilant te ñi nga xam ne tey dañu nekk ci quartier yi di ay jeunes nañu am fulla chef de quartier yi aussi nañu am fulla ñi ngi leen di woo di leen manipuler di leen wax jox leen diw jox leen diw effacer leen diw te loolu ay politicien ñoo koy def loolu nag laa bëggoon vraiment mu bañ a am en tout cas maa ngi sant euh, wax dëgg yàlla initiative bi ak euh, émission bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ko doon déglu voilà jërëjëf euh, ñu ngi koy sant baax di ko gërëm tey moo nekkoon suñu gan Talla Sylla XY xam naa XY moom sorewul xam naa code bi ëllëg di ñu ko décodeel euh, tey moo nekkoon suñu gan ci l'invité de la rédaction nekk ci APR di parti mi jiitu réew mi ñu ngi leen di sant baax di ko gërëm di sant Naar Samb mi ko ànd ak moom ci jotaay gi euh, di leen jox daje incha allah sant Modou Diouf mi nekkoon ci caméra bi Cheikh ci montage bi jëre ngeen jëf ba beneen incha allah